ak ku ñuy doog a da ku ñuy doog a dajeel. di leen nuyu ñoom ñëpp. di leen nuyu yéen ñëpp. di nuyu kilifa yu baax yi fi toog. di nuyu kilifa yu baax yi fi toog. dale ko ci sëñ Xaadim Amar mii. di waaju baax. di waaju baax. di taalibe bu baax. di taalibe bu baax. di taalibe bu woyof itam. du taalibe bu woyof itam. woyofaay gi neex ma ci moom lool. mais woyofaay gu neex ko ci moom lool. ndax kilifa. ndax ne kilifa. woyof rek mën laa cay séentu. nee na woyof rek la cay séentu. ak loo mag mag. ak loo mag mag. te amoo woyof. te amoo woyof. ci yow day des. yàlla ku woyof rek la bëgg. ndax ne yàlla ku ku woyof rek la bëgg. kon nag kon nag sëñ xaadim. suñ xol a ngi ci yow. sëñ Mbàkke seen xol mi ngi ci yow. jàpp ko tey ko tey jii. na ma xamee woon sa baay. nee na mu xamee woon sa baay sëñ Gumba Amar. noonee ne kóllëre gam amoon ci moom ne fasante ne ko ak yow bu baax a baax ndax ne daje ngeen ay yoon yoon mu mu gis saw melo mu neex ko lool nee na kon nag fasante naa ak yow kóllëre bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Kuure yéen waa Kuure mboolem ñi fi teew mboolem ñi fi teew ak dëkkandoo yi. ak dëkkandoo yi. ak xame yi. ak xame yi. ak mbokk yi jóge fépp. ak mbokk yi jóge fépp ci réew mi. ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi leen di nuyu. ci turu sëñ Cheikh Waalo Mbacke. ci turu sëñ Cheikh Waalo Mbacke moom sëñ Ibrahima mbakke absatu. nuyu boo xam ne nag. nuyu boo xam ne nag. nee na am na tàmbali. nee na am na tàmbali. ci amutub yamu. waaye amutub yamukaay. nee na bis bii ngeen ko tuddee. nee na bis bii ngeen ko tuddee. bis bu rëy la ci moom. bis bu rëy la ci moom. bu sañoon itam nag. bu sañoon itam. jëmmam ja moo fay teew. jëmmam ji moo fiy teew. waaye nag. waaye nag. itey adduna. nee itey adduna. ak gàllankoori adduna. ak gàllankoori adduna. moo tax mu yabal ma. moo tax mu yabal ko moom mii. yabal sëñ Sawru Mbay. yabal ma man mii. yabal sëñ Ibra Jeng. yabal sëñ Ibra Jeng. yabal sëñ Cheikh Cissé. yabal sëñ Cheikh Cissé. may ñu ànd ak moom. may ilimante jàkka may ilimante ja. ñu ànd ñëw fii ñu ànd ñëw fii teewal ko fi. sëriñ bi nee na. sëriñ bi nee na. kóolute gi ngeen amoon ci moom. kóolute gi ngeen amoon ci moom. cofeel gi ngeen amoon ci moom. cofeel gi ngeen amoon ci moom. yëg na ko. yëg na ko. démb tey doog a ñëw. démb tey doog a ñëw. te du jóge ci xelam mukk. nee du jóge ci xelam mukk. daf maa waxoon ne ma itam. daf ko waxoon ni ko. lenn rek la am. lenn rek la am. mooy sunu borom. mooy sunu borom. yonent bi. yonent bi. sëñ Touba. sëñ nee na yett yooyu rek la am nee na yooyu rek la am. xoolatul leneen ci àdduna. xoolatul leneen ci àdduna. jaamu yàlla. jaamu yàlla. topp yàlla. topp yàlla. gëm yàlla. gëm yàlla. teg ko fa ko war a teg. ko fa ko war a teg. wéetal ko. wéetal bañ koo booleeg dara. bañ koo booleeg dara. jaamu yàlla nag. jaamu yàlla nag. képp koo xam ne yaa ngi ci àdduna. képp koo xam ne yaa ngi ci àdduna. bëgg koo teggale sa bopp. bëgg koo teggale sa bopp. ak koo mën di doon ak koo mën a doon. da ngay nax sa bopp da ngay nax sa bopp. benn trace la boo ndax ne benn trace la boo xam ni. suñu boroom da koo tracé. suñu borom da koo tracé. yonent yëpp jaar ci. yonent yëpp jaar ci. kon nag. kon nag. képp ko wàcc ci àdduna. képp ku wàcc ci adduna ñu di la coow ci ak may. ñu di la coow ci ak may. may gay dëgg. may gay dëgg. ci jaamu yàlla dong ci jaamu yàlla rek nga ko amee. farataal leen julli. ni farat nee na farataal leen julli. te bu leen ci wenn waxtu raw. te bu leen ci wenn waxtu raw. farataal leen jàng alxuraan. farataal leen jàng alxuraan. te bu leen raw. bu mu leen raw. ndax loo ci mën a jàng. nee loo ci mën a jàng. bu doon ab isib la sax. bu doon ab isib la loola baax na. nee loola baax na. waaye jéem koo saxal ba ngant ñëw loo xam ne moo la koy tere. waaye ne ngeen jéem koo saxal ba ngant ñëw loo xam ni moo la koy tere. dee leen sàkk sarax. dee leen sàkk sarax. ndax sarax li muy fekk bari na. li muy ñoddi bari li muy ñoddi bari na. sarax nag daa bari ay façon. nee sarax nag daa bari ay façon. waaye biñ ciy wax. nee biñ ciy wax. bi nga xam ne yàlla rek a tax. bi nga xam ne yàlla rek a tax. nga joxe ko. nga joxe ko. du la lor yow mu jóge ci yaw du la lor yow mi mu jóge ci yow. kam jëm. du du lor kam jëm. sa aajo dana ci faju. sa aajo dana ci faju. aajoy kooka dana ci faju. aajoy dana ci faju. loolu it mu ne ngeen bàyyi ci nee na lool ngeen bàyyi ci xel. ginnaaw bi it. ginnaaw bi it. mu wax ma ne ma. mu wax ko ni ko. naa leen jàjj. na leen jàjj. ci wàllu taalibe ci wa ci wàllu ak taalibe ndax ñun day ñoom day dañoo amul lu sëñ dañoo amul lu may sëñ Tuuba ndax teraanga juñ a am ndax teraanga juñ mën a am moo leen ko jox moo leen ko jox mu dib taalibe mu dib muy ko aju ci moom ko aju moom te sëñ bi daa waxoon ni te sëñ bi daa waxoon ni yoonam wii mu sàkk yoonam wii mu sàkk kenn mënu cee amee lenn kenn mënu cee amee lenn lurutug taalibe lurutug taalibe. sëñ Modou Moussa. sëñ Modou Moussa. sëñ Fallou. sëñ Fallou. jaay seeni njureel. jaay seeni njureel. jëndee koog taalibe jëndee koog taalibe. kon nag lu mu adduna mën a demee. kon nag lu adduna mën a demee. ak nu mu mën a ak nu mu mën a demee. loo bokk bokk sëñ Touba. loo bokk bokk ci sëñ Touba. da ngay nangoo nekkub taalibe. da ngay nangoo nekkub taalibe. te doo nekk leneen te doo nekk leneen. kon nag nañ ko fonk nee na loo kon nag nañ ko fonk bu baax. ak taalibe it mooy lan. ak taalibe nee mooy lan. sax ci ndigalul sëñ bi. sax ci ndigalul sëñ bi. sëñ ab taalibe du wax lu tax. ab taalibe du wax lu tax. ab taalibe lu ko waral. ab taalibe du wax lu ko waral. saa su ndigal jógee. saa su ndigal jógee. daa war a topp ci ndigal daa war a topp ci ndigal la. loolu nag dafa mel ne léegi. nee loolu nag daa mel ni léegi. dafay bëgg a day bëgg a wàññeeku. ndax jëqa li ñuy wax confiance. nee na li ñuy wax confiance. dafa mel ni. dafa mel ni. saytaane da koo bëgg a jeexal ci biir nit ñi. saytaane da koo bëgg a jeexal ci biir nit ñi. te loolu ñun ñoo ko war a xeex. te ñooñu nag loolu nag nee na ñoom ñii ñoo ko war a xeex. ndax ñi fi nekkoon sëñ Touba. ndax ñi fi nekk na sëñ Touba. dañ koo toppoon ñàcc. dañ koo toppoon ñàcc. dawuñu ko laaj lu tax. dawuñu ko laaj lu tax. dawuñu ko laaj lu ko waral. dawuñu ko laaj lu ko waral. dawuñu ko laaj leneen. dawuñu ko laaj leneen. ndigalam lañ daan mar. ndigalam lañ daan mar. ku ci toog lu ku ci toog ñetti fan joxu la ndigal nga yaakaar ni sa adduna dafa tukki sëñ bi dalaa fàtte waaye jamono léegi jii ndigal lis ci yëkkati yaar yoon mu indi ay jafe-jafe kon wan na ni ñooñee ab royukaay lañu war nañ cee roy bu baax a baax nee li ci toppaatit mooy bokkoo nu bokkoo yéenante jàmm jàmm saa suñ ko defut saa yu suñ ko defut na la wóor adduna ji ñu nekk na la wóor ne adduna ji ñu nekk duñ ci dund ci jàmm mukk dañoo war a bokkoo dañoo war a bokkoo nekk benn nekk benn amul tiijaan amul tiijaan amul murit amul murit amul xaadir amul laayeen amul lenn ñun ñëpp noo war a bokkoo téerab alxuraan bi benn la yonente bi benn la sëñ Touba Cissé Touré. Cissé Touré. Alaaji Malick. Alaaji Malick. Faasa ngi nii soriwut. Faasa bu yàggul rek la woon. bu ñoom ñëpp fa daje woon. ñoom ñëpp fa daje woon. ñoom itam. ñoom itam. ñoo ŋànk yoon yi ci. ñoo ñoo ŋànk yoon yi te ñoo bokk seen maam. te ñoo bokk seen maam Maharam. te kenn ku te kenn ku ci ndayoo ngi ci. ndayoo ngi ci. bàyyoo ngi ci kon nag loolu doy na sëkk kon nag loolu doy na sëkk kon ñoom dañoo nekkoon benn kon ñoom dañoo nekkoon benn waaye lu tax ñoom mun mun ñoo nekk benn nee na kon intérêt personnel rek la loolu nag nañ ci bàyyi xel bu baax nan bokkoo te al xam ni alxuraan benn la yonente bi kenn la xibla gi genn la penku la jëm kon nag loolu la nañ ko bàyyi xel bu baax a baax nee na. mi ngi leen di sant. mi ngi leen di sant. di leen gërëm. di leen gërëm. di leen jàjj. di leen jàjj. ngeen topp sëriñ bi. ngeen topp sëriñ bi. bëgg ko. bëgg ko. te bañ koo booleeg dara. te bañ koo booleeg dara. kenn ku ci nekk. kenn ku ci ne. fa nga nekk. fa nga nekk. ak fu mën di doon. ak fu man di doon. na ko jàpp bu wér. na nga ko jàpp bu wér. ndax loolu rek la sëñ Touba bëgg. ne loolu rek la sëñ Touba bëgg. day wax ni sëñ Touba. ay reen la. ay reen la. waa këram. waa ñooy dàtt bi. sët yi sët yi ñooy car yi ñooy car yi taalibe yi taalibe yi ñooy xob yi kon garab balaa mën a taxaw ne kon garab balaa mën a taxaw bañ di ca mën a jariñoo bañ di ca mën a jariñoo yii ma lim yëpp yii mu lim yëpp da cay ànd nga mën a ñëw toog ca kër ga nga mën a ñëw nag toog ca kër gi kon nag loolu kon nag loolu nee na ni ñu ko xam bu baax a baax mi ngi leen di sant mi di leen gërëm lu ci des nag ci lu ci des ne ci moom la waaye moom ni mu ko bëggee waaye nee ni mu ko bëggee woon daa bëgg na ñëw toogal boppam waxtaan ak yéen waxtaan ak yéen ba ngeen xam tolluwaayam ba ngeen xam tolluwaayam ci yéen ba ngeen xam ni ngeen mel ci moom ba ngeen xam ni ngeen mel ci moom guddeeg bëccëg it mi ngi leen di ñaanal mi ngi leen di ñaanal jàjj. guddeeg bëccëg mi ngi leen di jàjj. amul xejj nag. amul xejj nag. amul seen amul ñëpp la ci yemale ñëpp la ci yemale. ndax ku mu bokkalu sëñ Touba. mais ku mu bokkalu sëñ Touba. bokk naa yow ci Cissé ci Cissé Touré. kon nag mooy Cissé mooy El Hadj te mooy Cissé mooy El Hadj kon nag loola. waaw kon nag nee na loola. moo tax ñëpp la ñaanal. moo tax ñëpp lay ñaanal. amu ci xejj. amu ci seen amu ci leen di digal daal mooy lim leen di digal daal mooy. na ngeen woyof. na ngeen woyof. ndax jaamu yàlla bu mu mën a doon. bu ëndut ak woyof du sotti du sotti. ndax sa liñ daa wax naa. ne liñ daa wax naa. Euh, lépp loo xamante ne moo nekk ci lépp loo xam ne moo nekk ci biirum néeg. bu nee bay lakk. bu nee bay lakk. la diis rek ka fay des. la diis rek ka des. diis nag jigutub sëriñ. diis nag jigutub sëriñ. jigutub taalibe jigutub taalibe. ndax boo diisee dib sëriñ. ndax boo diisee dib sëriñ. taalibe wàcc la fa. taalibe wàcc la fa. boo def taalibe diis. boo def taalibe ñu wàcc la fa. te sëñ Modou Mokhtar si la sëñ Modou Mokhtar si la mii dëkk nekkoon ñaaxeen mi ngi koy nettali. benn bis benn bis. mu jaar ñaaxeen da doon sama xarit xaritam lool. benn la woon benn la woon. mu ne ma mu ni ko. sëñ Modou Moustapha Dey. sëñ Modou Moustapha Dey. bi muy sant sëñ Mat si la fii ci ñaaxeen. Euh, muy sant sëñ Mat si la fii ci ñaaxeen. da koo woo ba mu ñëw. da koo woo ba mu ñëw. ko merci la. mu ni ko merci la. damaa bëggoon nga toog fii. damaa bëggoon nga toog fii. lu aji ci man bokk ak sëñ Touba. lu aji ci man bokk ak sëñ Touba. bu ñëwee nga dalal ko. bu ñëwee nga dalal ko. te ñëpp na nga leen yemale. te ñëpp na nga leen yemale. ku ci nekk. ku ci nekk. na nga ko def ni sama jëmm ji. na nga ko def ni sama jëmm ji. loola li muy tere ne. loola li muy wane. sëñ Touba kenn la. sëñ Touba kenn la. amul góor ndeyjoor. amul ndijoor. amul càmmoñ. amul càmmoñ. amul kanam amul ginnaaw. amul kanam amul ginnaaw. képp ku bokk ci deret sëñ Touba ji. képp ku bokk ci deret sëñ Touba ji. sëñ Touba la sëñ Touba amul ci ndaw. amul ci ndaw. amul ci mag amul ci mag. amul ci lii amul ci laa. amul ci lii ci laa. ginnaaw deret ji nee na toq ci deretam. ginnaaw deret nee na toq ci deretam. kenn mënu ko caa génn kenn mënu ko caa génn. ma ne loolu ndax ba mu ko waxee loolu ba noppi. nee ba mu ko waxee loolu ba noppi. dani ko dani ko. ah merci la lee ca kaw lu mu doon. lee kaw lu mu doon. mu ne ko lee cëggu bësi la. mu ne ko lee de cëggu bësi la. wàcceel ma cëggu bësi bi. ne ko wàcceel ma cëggu bësi bi. tegal ma ko fii ci sama wet. ma ko fii ci sama wet. ba mu ko tegalee ci wetam. ko tegalee ci wetam. yàlla dogal ñu toog ñu toog di waxtaan. ñu toog di waxtaan. di waxtaan di waxtaan. ba mu jàgg mu ne ko jëlal cëgg bi delloo mu ne ko jëlal cëgg bi delloo ko fa mu nekkoon. ba mu ko delloo fa mu nekkoon. ba mu ko delloo fa mu nekkoon. ba noppi mu ñëw. ba noppi mu ñëw. toogaat toogaat. mësi la fii fii cëgg mu ne ko mësi la fii cëgg bi neen lu fi nekk. mu ne ko fii de euh, bësi bee fi ruus. mu ne ko fii de bësi bi moo fi ruus. mu ne ko képp ku bokk sëñ Touba. ku bokk ci deret sëñ Touba. fépp foo xam ne wàcc na fa. fépp foo xam ne wàcc na fa. dana fa bàyyi dara dana fa bàyyi dara. kon nag loolee. loolee nag kon. amul xej. amul xej. amul seen. amul seen. képp koo xam ne bokk na ci Touba te ngeen gis ko. képp koo xam ne bokk na ci sëñ Touba te ngeen gis ko. na ko teral na ngeen ko teral. sàkku ci moom ñaan sàkku ci moom ñaan. delloo ko wàccuwaayam. delloo ko wàccuwaayam. ak nu mu mën a demee mu ngi leen di san di leen gërëm di ci guddal gi. di jéggal ci guddal gi. ndax eh, dafa guddi. ndax dafa guddi. waaye lu ci matut daal. Ah, jërëjëf. nee ah, ci matut daal man la waaye mat na lépp. lépp mat na jërëjëf. boo toogee ay kilifa ay kilifa yi yëkkati kàddu ba pare duy teggin sax ngay waxaat di ca teg benn baat waaye nag dafa fekk ni ndigal su jógee itam dañoo wax ni bu ndigal jotee jóge maanaam jëfe rek moom moo ci topp moo waral suñuy kàddu waaye kon sax maanaam warunoo wax ndax bu sëñ Mbàkke xasee wax ba pare yaakaaruma ni kenn war naa wax waaye samay waxe nag maa ngi koy jëme ci daanaka ñaari yëf muy maanaam li nu fi dajale mu di bokk defe naa sëñ bi wax na ci ndax nee na defe naa yor nanu jox nanu yoon ba pare nan bennoo naam xam naa noo ngi ci yoon wi sax waaye nun gone yi dañ koo war a yokk ndax màggal gii di màggalu Kuré Kalom maanaam bi ñu koy commencé man xale laa yàlla dogal may na ma kartan ak fekke ba ma koy fekke ba léegi kon lee mu yàgg mu di woon lu mag ñi commencé woon fii bañ koy commencé sax metti woon na lool jafe waaye nag ñoom dañ doon gis luñ gisul kon ndax yaakaar naa ne màggal gii nuy def fii tey ci kuréel Kalom gi fi dajale bari nañu ne ci baas bi ñoo nga xam ni kuure gi lañ cosaanoo waaye juddoo fi te màggal gii moo leen indi kuréel Kalom moo fi indi seenu njaboot su ma ko sañee wax dinaa ci boole sax ba ki taxawal jumaa ji yaakaar naa njabootam ñoo ngi ci baas bi. ñoom juddoowuñ Kuure même buñ fi cosaanoo juddoowuñ ci kon ndaje mii moo waral ñoom muy law bañ ñëw Kuure ba war fee taxawal jumaa kon ñoom seen jaan wàcc mag ñi seen jaan wàcc na muy bàyyi bu naa mbow mi fi nekk nag ña ko jiitoog maam Modou Niang ak maam Tafa Niang yal na yàlla xanaa jëna fay leen seen jëf ndax ñoom ñu sonnoon ci Kuure lañ mel na ni nag ñoom seeni njaboot yi leen remplacé tam sonn nañ ci kuure kolom dox muy ku ci mel ni yal na ko yàlla yërëm ci yeexnu sama ndiyaay Seex Mbàkke Seex Mbàkke ñang ak sama ndiyaay Mooda ak ñi fi des sama ndiyaay wee ñang Paap ñang Seex mu ñang ak mun ñang mii di seen rakk moom itam nekk ak ñoom Dakar comme ñor na leen ndax ñor gi mooy ñoom seeni doom lañ nekkal Ndakaaru waaye teewul ñu ànd ak seeni doom di dox ak ñoom ngir Kouré kon waa Kouré buñ dëkkee Kouré waa Kouré amee na leenu cant nun waa Kouré amee na leenu cant amee na leenu cant gu rëy kon noo ngi leen di sant noo ngi sant itam mbooleem kilifa yi diine yi nga xay teew nañ fi du jar ma ciy jaaraat ndax daanaka ni ñoom ñoo moom dëkk bi comme ñoom jëruñu leen di tudd ndax ñoo moom dëkk bi maanaam mbokk yi nga xay ne ñoo nu wër ñëpp ñoo ngi sant ñëpp xay na kii ñëw di topp ci man dina gën a leer jaar seen i tur mais man du jar may jaar ci tur mais nag ñoo ngi sant ñëpp koo nga xëy daal ñëw nga fi ñoo ngi sant tam monsieur le maire ndax ya toogaay bi yàgg na te yitte yi bari na ñoo ngi koy sant waaye moom itam comme li ma wax ñii ci dëkk la dëkk mag ñi commencé nañ jàng yi di ko commencé cere jàkka ji nekkan fii boo ko kër ki nañ lépp jàkka ji boo ko xayma woon mutul woon 3 millions léegi dem nañ bam juma noo ngi commencé mbaar loolu lépp nag ci barke mag ñi la nun gone yi defaguñ ci dara ma bëggoon nu jéem a góor góorlu gi mi ngi ci comme li nu sëñ bi sant bennoo gi yéenente jàmm xam ne nun noo bokk dëkk bi ay magoo ko sancen ñoo nga xam ne yàlla dimbali na leen ndax la leen yàlla dimbalee sëñ bi wax na ko sëñ Touba du jaar fenn fu mu bayiwul dara ca defe naa sëñ Touba ak Alaaji Maalik julli nañ fii moom lañ tabax fee di ko siyaare kon nun am nañ jafe lu jafe lool nag li ñu koy am am dañ koy jàpp ak fukki loxo wala mu dem kon nan góor góor lu jàppante yéenante jàmm xam ne danoo bokk nun suñ bokk gi taamuluñ ko suñ bokk bu doon taamul suñ bokk keneen ku ne am nga ko bokkal mais yàllaa nu taamul suñu bokk boole nu kure Kalom gi kure Kalom mën naa la benn famille la parce que ñetti sant yi fi ne muy ñang mbaw kayre benn sant benn benn famille lañ ñaari famille amu fi gis naa nag yoon woo nga xam ni bu ñu commencé woon xay nañ le sëñ bi na nga leen ñaanal ñaanal gone yëpp ndax gis naa ci ñoom yoon woo xay ne suñ ko wàccut seytaane dugg ci mën nanoo yegg fu sori kon nag nu ci ñaanal làqal ñu seytaane nu góor góorlu bëggante mag ñi jàll nañ de mag ñi ñoom wàcc nañ li ñu war a def lépp def euh, euh, wax ko moom indi ko ci nit ñi euh, dafa ne du du mu jëpp mu mu mun am importance ñun ñi ko mujj nag ñoo ngi ci def bay suñu waaye damaa bëggoon ñu delloo buum ca boy boy ba delloo buum ca boy boy nag mooy ñi nga xam ne initiateur lii tax ñuy teew fii baaxoon na ñu fàttaliku leen parce que fàttaliku yaakaar naa ni sa ngor des na buñ fi toogee tey jii di ziare ci jumaa jii ja waxuma laa jumaa jàkk woon waaye ñu def ko jumaa léegi Baye Ibrahima Niang ma nekk Mbuur mooy initiateur moo jëkk jël alalam def ci nu ko koy sant nag bu baax di ñaan yàlla yokkal ko leeram fa mu nekk ay di sant njabootam gi nga xam ne ñoom itam dé bu dégg ba cëkk ñi ngi bay ci diggante mbokk ak waa tool ak waa Diourbel ak waa Ndakaaru ak waa bàyyiwuma kenn waaye du ma fàtte bu ma nee Baye ni Baye bu naa Mbow ni Baye mu Niang ni Baye Modou Niang ni Baye Modou Koumba ni Serigne Cheikh Niang bu yegsee ba fii grâce à nan ko ko sant te ñaa dolli ko ñaan yàlla fa mu fa mu nekk mu dolli koy leer moog Alaaji Modou loolu précision boobu laa bëggoon ñëpp xam xam ni bu bu ñu toogee fii di wax ci jumaa ji ci affaire ku rekaloo ñooñu ñooy initiateur yi il ñu delloo leen seen jukka ngeen baal ma nag pour fu boobu débat bopp yi yéen ñi ñu bokkal maam di dëkk bu nu neex nag ñu ku rekaloo man coono bu ma gisuma ko yëguma ko ndax amul lu ñu suñu kër maam mbarkaal la ñuy sant yàlla di bind ci yonent bi di sant suñu waajur yu baaxee ya nga xam lépp ñoo ko fondement ba nga gën siiw tubaarkàlla may sant suñu meeru dëkk di sant tubaarkàlla autorité yi fi nekk yëpp di sant suñu sëriñ su baax sii ñu yàlla boole di sant suñu njaboot yi suñu mag yi suñu rakk yi suñu doom yi ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla ne kuréel gi saa yu ñëwee yàlla na fekk ñu gën a yokk ndax mooy suñu pari moom la ñuy tiitaroo moom rek la ñu am di leen ñaan nag yéen ñi nga xam yéen a bokk ci gouvernement bi te nekk fi ngeen jàppale nu ci tali bi mu agsi ci jàmm ak salaam ngeen jàppale nu ci kàttanu yàlla ñu am courant ci dëkk bi ndax dëkk bi moom la ñuy tiitaroo su ko defee ñun ñu ñëw wut fi suñuy kër defar ko ba mu baax ñu di fi dikk ak suñu njaboot ndax ku nekk la nga am maa ngi leen di ñaanal yàlla lu ngeen man ren bu déwénee yàlla na ngeen man ko raw di leen sant di leen di ñaanal yàlla ñu ci dëkk bi yàlla na leen yàlla gën a jàppale ba nu di leen fi fekk ci jàmm ak salaam dara jee Moustapha te kàddu ñëpp nag laa waxee. yéen mbokki Kouré Kalom yéen mbokki dëkkandoo yi yéen mbokki taalibe yi maa ngi siyaar ñëpp kenn ku maa nga fa toog maa ngi ñaan yàlla sama kàddu bi fekk na ci jàmm. fii fii moo ko fii la koy waxee tamit suñu borom def fi jàmm waaw comme ni ñu ko waxee waxtu bi gàtt na ndax yéex na noo commencé ba waxtu bi gàtt ndax monsieur le maire mi ngi nii toog te am na feneen fu mu jëm fii te waxtu bi xat na li ñu bëggoon wax lépp nag duñ ko mën a wax waaye su ma jubloo ñi fi jaar ki nga xam si mooy suñu kilifa tey di suñu bunt ci Serigne Touba muy sëñ Mbàkke wax bi wax bépp ci biiru mbokk jurut ñu ci jaar sama mag jaar na ci muy ba mbaw jurut ñu ci wax bi may wax nag dama koy wax ci turu gone yi nga xam si yàlla daa dogal ma nekk ci seen biir ñii may seen mag ñii may seen baay muy xale yi nekk Kouré Kama tey nga xam si lii bu taxawee ñoom li ëpp ñoom kon ñooña ci seen wax wax bi nag maa ngi ci turu président bi ki nga xam si moom lañ teg ci suñu kanam muy président Kouré Kalom tey muy Serigne Omar Mbow di sama rak waaw nga xay si mooy président bi tey moom la yàlla dogal ñu nangul ko kon ñëpp di ñaan yàlla yan bi nu koy yan yàlla na woyof yàlla ci jëlee ndam loolu noonu ko koy ñaanal ndax jiitu dafa mit kon buñ ko jiitalee nan ko ñaanal yàlla yan bi woyof ba fii mu ko yóbbu ren bu déwénee mu yóbbu ko fu ko te am naa ci yaakaar bu baax ndax maa ñoom ñoo bokk nekk fa Ndakaaru di ànd di ñëw fi Kuré Kalom xam naa leen xam nañ te nan bu baax xam naa seen yéene. xam naa seen pëstéef xam naa seen jom xam naa seen fula muy gone yi ndax man dama leen màggalu Coura Kallam tey nii mu mel man man naa ni sama ndam la tey kontaan naa ndax li tax ma kontaan yàgg naa xeex ci màggalu Coura Kallam pour muy bëgg a avancer di jëm kanam kan tey bu ma demee ba sama rakk yooyu tey jël màggal bi yóbbu ko fii ma te li ma leer bu leen yàlla maye ak wér ak kartan ak wërsëg bu nee fii mu nekk tey dinañ ko yóbbu fu ko sori kon nañ leen bu baax ñoom gone yi de mat nanoo ñaanal ndax am nañu yéene ci kuure kawam gone yi nag su ma tuddee Omar ñëpp ngi ci biir ndax xamante nan waaye nag bu ma nee Omar am na ñu muy liggéeyal loolu ku mel ni Mandiaye Mbow ku mel ni Badda Mbow ku mel ni Fallou Mbow ak Omar amatina solo mais euh, sama gor ak xale yi nga xaalis si ñoo nekk ci dëkk bi ñu seet ay bureau yoo xaalis si dañ caa jiital góor a topp ci moom ak ay Fallou mbaw kulim juum mais mënutoo bañ a limee noonu parce que mbir moo gis am na ñu jiitu ñoo xaalis yi ñoo nekk ci waaye teew ñu gone yëpp ñoo ngi mbooloo nekk benn fas yéene jëmale Kouré kanam mbaar mii nag mbaar mii nag dañuy ñaan yàlla bu déwénee nu nu nu ci la ñuy gàmm di ñaan képp koo xam si yaa ngi ci biir mbo mbooloo mii nu nekk tey soo mënta génn tey sa li nga jaayante fii nu nekk tey nu koy ñaan bala nga fee jóge ñun ñi nga xaalis si ñoo dëkk Kuuré Kalom ñu xam ne diw mii joxe na ci nangam ndax kat heure bi daaw ban gàmmu ba pare bu nu amee ay mool yu toll nee mbaaram toll fi am na ay jaayante yoo xaalis yi ñoo ngi ci biir baas bi jëru ñuy tudd seen kon nag am na ñu mel ni ñu moom ak ñoo xaalis si man na noo jaayante ku man junni baax na ku man ñaar téeméer baax na lu waaye man ñu jaayante ko ba lu fee jógee mbaar mii bu nëgë ni déwénee ñun gàmmoo ci ndax fas yéene nañ bu nu gàmmoo gi passé ñu ñu ne ñu dal ci mbaal mbaar ñii tey kon nag loolu may lancé message boobu ñu bëgg autorité yi toog nag fàttewuma leen muy monsieur le maire mii toog dëkk bii nag day dëkk cosaan boo xaay tey jii boo mat na ñeenti téeméeri ci histoire ndax maa ngi dégg maa ngi di ko wax ay kilifa sosoo fi ci gox bu ne nan nan nan nan ne dëkk bi ay jeunes ngi fi yoo xaay na soixante jëm kaw ak seen i soxla ay jigéen fi yoo boo ko calculé kenn ko ay junni nit yeewoo ci dëkk bi dëkk bu toll nii courant amu fi kon nag war na noo fexe ba courant taxaw ci dëkk bi monsieur le maire loolu maa ngi la koy lancé soxla nañ courant bu baax fi ñu toll nii yitte woon nañ ko trop te yaay suñu bunt nag ci ci ci mbir mi kon loolu noo ngi la koy ñaan balaa nga ni si déwén bu soobee suñu borom bu ñuy gàmm duñu luyee guub courant bi ñëw fi jërë ngeen jëf waxtu bi gàtt maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp